mbokk yi ngeen jëf seen andak ak euh, télévision Futur Média xibaaru marax yi gannaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen ñu koy tàmbalee jéye jee am ca jigal yi nekk ca commune bu barke ji ay samba boo ya fa song ba euh, rey fa benn commerçant Euh, daa di euh, kon euh, lëmbee gox ba ñu teewlu député bi di Yoro Sow ak barke ji demoon nañ nemmeeku askan wi Mamadou Moustapha Ndiaye ak Sidi Thiam la ñu dénk kàddu yi. waaw ay boori 19h jàpp 20h quoi. Mhm. boobu maa ngi woon ci biir biti bi toog taxaw noonu di jaay. mais mhm. bañ dugg sax dañoo tiire bal ci kaw. léegi ci laa daw génn dugg ci biir néeg bi quoi. Mhm. léegi maag beneen booy bi ki ci des. Mhm. ba muy dugg ci la ko ci la ko ki ci des xëcc ci ki yoroon jaas ci la ko xëcc mu génn. te mhm. ba mu génnee ñu ñu dugg ci biir dugg ci rondal gi. te ci la ànd ak ñoom dugg ci biir bitig bi jël lu fi newoon lépp. mais ñoom dugg nañ ci néeg yëpp vérifié si nañ xotti sama ñaari valise sax ak valise yi newoon ci biir foofu fépp. waaw ah, dañoo masque wu moom kaal lañ def. masque wu nañ. tax ba nekk ci biir néeg bi tiire nañ benn bal fi côté bi ñu tëddewoon ci kaw. ak ci bunt néeg bi tiire woon nañ ci fi benn bal tamit. di masawu waa jagal di masawu département Linguère bi yëpp. Euh, waaw autorité yi message bi ma bi may lancé rek mooy na ñu renforcer sécurité département Linguère ci 19 communes yëpp. am na si commune yi nga xam ne ni du commune u Barke rek ah, am na si communes yu bëri parce que je pense que amoon na lu yàggul gasaan donc sa veut dire que nii donc département Linguère bi yëpp damay lancer vraiment ñu renforcer sécurité bi parce que c'est pas seulement attaque yi rek ñoom ñoo fi nekk am na leneen yi nga xam na ni aussi mu ngi fi insécurité la parce que ay gorante ay jaas yi coup blessure volontaire yi ngi fi loolu yëpp ngi fi donc euh, vol de bétail ngi fi loolu yëpp ngi fi donc sécurité bi dafa xaw manqué li may lancé rek mooy euh, appel bi nga xam ne ni vraiment pour ñu sécuriser département Linguère particulièrement rek fi ñu taxaw fi kon kàddu seede maire bu barke ji ngeen dégg noonu ak seede euh, euh, ka dëkk ca gox ba ba léegi mbirum Samba booy bi it amoon ca Daaru Ndooy di gox bu nekk ca Daaru Xuddos commune bu bokk ci Thiès la ak gérant auberge buñ fa rayoon yegg ca kaw soxnaam ba ñu tegoon ci loxo ay ndaw yu dëkk ca gox ba Euh, attaque euh, lu teg ba léegi kenn attewu leen seen i mbokk ne dañoo bëgg attekat bi addu ci mbir moomu ndax jàpp nañ ni ñu bëri ci ñi ñu jiiñ mbir mi bokkuñu ci taqewuñ ci laalewuñ ci sëy latir Cheikh Anta ci leeral Ndoy di ab village bu nekk ci commune bu Daaru Xudoos fii ay tool yu amoon benn auberge ci biir moom lañu faatoon ki ko yoroon di ab tubaab nekkoon faak soxnaam soxnaam si sax ñu àggoon ci kawam ba tax nag village bu Daaru Ndooy daanaka ndaw ñu bëri la ñu xëy xëy rek jàpp yóbbu leen genre gendarmerie laataa ñu leen yóbbu ci kaso bu Cees seen waajur yi nag génnoon nag nee nañ at ngi nii ñu koy muñ nee nañ xale yi ñu teg loxole am na si ñoo xamante ne ay innocent lañ bokk ñu ci. premier jour dañoo ñàpp benn booy bu am. booy bi quinze ans la am. moom lañ ñëpp jàpp moom mu ngi doon liggéey foofu ci ñoom nee ni ñu ko tuddee auberge la mais nun toolu roose lañ ko xamoon. après si lañ jël booy boobu ci moom la ñu def escalier pour jéem a jàpp booy yi waaw te gone boo ko sonalee mag sax boo ko sonalee yor na coono yi mun na wax lu mu xamut jàpp kii jàpp ñun daal fii lañ jógee ramas ñëpp. gisuñu kenn ku ñu daal mun a dimbali ñu ngi koy jooytu fu nekk nag képp ku ñu mun a jàppale ci suñ doom yi ñu bàyyi foofu. ngir yàlla ak yonente bi nga jàppale na ñi nga xam ne nun ay citoyen lañ ci réew mi lañ bokk seen soxna yi di ratal ay rongañ jaaxle lool kii defar seen kàddu nee di mi ngi sàkku ci ñi nga xamante ne ñooy doxal yoon ci réew mi ak organisation droit de l'homme yi ñu taxawu ndaw ñi kii jëkkëram moom it moom lañ ci jàpp xoola dañoo ramasse rek noonu daal fekk ñu ci kër gi rek ceene leen yóbbu xale am nañ fa at ak daanaka askanu Daaru Ndoy bi ci njàqare lañu nekk ba tax na imaamu dëkk bi génn ñaanal leen danañu muñ tey sàkku ci kilifa yi ñu taxawu gune yi ba képp ku ci bokkul de ñu génne la. ñu àddu jëmaleek euh, post jamono ji ba ba dox euh, diggante liggéeykat yi ak seeni njaatige ñu namoon euh, amal sitin boo xam ni ñoo takk der yi ñoo ci mujj jàkkaarloo ba tax Fat bintu Konté Jaafara ba teewee nañ ko ci nettali tey nag ay postiers yu mer ba fottu lañu ñu fekk fee nga xam ne moom moo di seen direction général bi nekk ci biir centre ville bi lee ñu amaloon ab toggaayu ñaxtu wante nag toggaayu ñaxtu boobu nag ab xeex sax la mujjee seen diggante ñoom ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der yi lee bi tey muulul niroo ak ndaje xam ne moom la ñu fi doon woote ndaje bi tey signal la pour wax dëgg yàlla travailleurs yi wone ne dañu doyal ci situation biñ ñu bëgg a imposer. ci d'aujourd'hui les travailleurs vont se rebeller les travailleurs dinañu ñaxtu dinañu dem ba dépasser la ñu doon def parce que liggéeykat yi ñu taxaw parce que nag dañ bëgga bëgg a lor dañ ñu bëgg a dañ ñu bëgg a bëgg a wuñu suñu sutura. situation poste nag ma ngay gën a ñaaw fi mu nii sax ñoom ñi nga xam ne ñoom ñuy agent yi ba le bi ñu nekk jotaguñu li nga xam ne moom moo di seen i payoor. tey jii nii tey la le onze fayeku wuñu suñuy salaire waaye yamuñu ci loolu mékap bi nga xam ni travailleurs yi dañ fa doon lépp pour mën di yokku xam nga seeni i dépense di mën faj seen i aajo mënatuñu fa lépp lu tax. parce que direction générale dafay def ay préconte maanaam dafay dagg ci suñu salaire parce que ñoo ko ko sant mu mun ko delloo institution boobu mais bu ko dajalee du ko ko delloo. ñoom ngi ñi nga xam ne ñoom ñoo di nguur gi ndax jàpp nañu ne jafe-jafe yi entreprise bi nekkee jib njaag rek nguur gi la. li ñu ciy gis moom mooy que ni popul poste dafa sooxe poste motul liñ koy doyee nañ ko nërmel loolu la ci état bi jublu. war ko nërmel et loolu la nga xam ne moom moo ko wundu maasaale ko ñaambe yeeg ñaawteef lu luuxóor yi nga xam ne xew na ci post bi bëgg ko yéen liggéeykat yi liggéeykat yi duñ ko duñ ko nangu. ñoom postiers yooyu nag ña ngay interpellé ki nga xam ne moom moo di njiitum réew mi mu wax nag ci seen situation ndax gis na ni def nañ ci ay milliards ci post wante boobu ba tey ñoom liggéeykat yi gisuñ ci dara. ñu wax ci mbéyum wétteen yi ca Kédougou xondoxu nekk ci département Saraya directeur fi Sodefitex ba mu fa jaaree njàqare la am ndax tool yu bëri dafa yàqu euh, ndax euh, ñi nga xam ni mooy euh, gunóor rek ya ko song ba tax foofu ca Kédougou amatuñu yaakaar ci wëtteen bi ren ji di sàkku ci nguur gi mu indi ci ay matukaay taxawu leen Ibrahima Jabaxaate ci leeral ak juróom-benn hectares yi yëpp yàqu ay xeetu gunóor yi ñuy woowee jacide ñu yàq tool yi yëpp ci téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom yi yëpp yàqu ci li des ci ñaari junni ak fukk ak juróom-ñaar hectares yi seeni taux d'abandon mu ngi ci diggante fanweer jëm 90 pour cent def nañu façon pexe bu nekk pour xeex xeetu gunóor yi waaye mujj la antu. ça fait euh, deux mois maintenant ñu ngi ñu ngi jaaxle. jaaxle bi euh, li ko waral mooy dafa am gunóor bu bees bu ñu xamul woon bu ñu miinul woon bu ñëw dugg ci tool yi daanaka yàq tool yépp tey producteur coton yi amatul yaakaar lépp lu ñu waroon def lépp ñoom li ñu waroon def ci wàllu traitement ci wàllu protection phytosanitaire def nañ ko mais malheureusement tey amuñu benn solution boo xam ne mooy permettre ñu mun a euh, maîtriser euh, gunóor boobu nga xam ne moom mooy yàq Euh, tool donc. mu nekk nii filière coton bi sax moo jànkonteel ak ay jafe-jafe ci mim réew. campagne bi nag euh, problème principal bi mooy doon nan la ñuy fayee seen bopp mais suñu fayee seen bopp ba pare lan la ñuy dundee donc loolu moo tax monsieur le ministre ñëw. malheureusement cette année ak pression parasitaire bi nga xam ne euh, moo ñëw bett ñu producteurs yi ñu ngi jaaxle. ñu ngi jaaxle mais daal euh, je suis convaincu que gouvernement du Sénégal dinañu jàppale pour que ñu mën a dépasser situation. ci jamono ji ndimbal nguur gi doon na li ñëpp doon yaakaar pour jàppale ñeenti fukki junni coton culture yi nga xam ne ñoo yeewu fii ci diwaanu Kédougou. Ibrahima Jaxa Jabaxaate noonu mu demee ca gu noonu it la demee ca Tambacounda ak euh, toolu wëtteen yi nga xam ni gunóor xeetu gunóor yooyu nga wax euh, song nañ ko ministre bi Aly nguy Ndiaye yore wàllu mbéy mi ak souveraineté alimentaire euh, diggée na ni nguur gi dina ci def li war Abdoulaye jàlloo ci leeral woon en tournée agricole ci zone cotonnière bu diwaan yu sud est jëwriñ ji ñu denk wàllu mbéy mi Aly Ngouille Ndiaye moo ñëw fii ci Vélingara ngir ne mooy yàqu-yàqu yi fi jot a am ci wàllu witeen yu béykat yu département bu Vélingara dañu fi ñëwoon tey pour seet si tool yi ndax bi ñu toogee ci ministère bi rek daanaka eh, quelque jour lañ ci teg matul sax semaine ñu jot bataaxal bu wan nañu ne Euh, ñi nga xam ne bii dañuy yëngatu ci wàllu euh, mbéyum witteen ñi ngi am njaaxle euh, lu tax lu am njaaxle parce que gis nañ loo xam ne lii mu ngi lekk seeni tool te ñoom jéem nañu xeex ba sonn mënuñ ko xeex te it ñu gis ne li leen dal du fii rek la am dafa am pratiquement ci réew yëpp yi nga xam ne ñi ngi bay witteen ñu seet ci gisal suñu bopp li nga xam ne lii moom lañ ñu doon wax parce que gis nañ photo yi gis nañ yëpp waaye nag bi ma ñëwee teg ci sama bët li ma gisoon ci photo yi ak lii mel na ni lii sax mu gën a mu gën day doy waar. ñu jaaxle lool ci kanamu mbir mi ak nan la ñuy fayee seen bor yi ñuy ameel banque yi béykat yi ñooy sàkku ndimbal la. li ñu xaar ci ministre bi mooy euh, mu jàppale ñu comme mënuñu fay bor bi ren bugg nañu ko gaa convention bu ñu am ak kii CNCAS mooy ku fayul quatre vingt dix pour cent dootoo amati bor mais lii moom mënuñu. at bu ne dañuy fay quatre di dix pour cent l' ensemble du kii te danañu del lu ëpp lu envisé lu approché quatre milliards ñu fay quatre vingt dix pour cent mais ren su fekkee cinq cent kilos mooy fay boru hectare yow doo am trois cent kilos nooy fayee. te béykat bi béyul rek pour muy fayee bor dafay béy pour mu fay boram. mu nekk solvable au niveau de la banque mu béy pour mu lu mu dundalee. njobootam ministre Aly Ngouille Ndiaye dafa xamle ne nguur gi dina taxaw tem ngir indi saafara ci mbir mi. état bi dana leen accompagner mook Sodefitex parce que nag accompagnement bi tàmbaliwul tey accompagnement bi amoon na naka jekk parce que déjà ñoom ñëpp ñu bari pour ñu mën a bay il faut ñu lebal leen ki leen di lebal certainement Sodefitex am na ci rôle ba. sax yi yàq witeen béykat yi yemuñu rek ci witeen ba dañoo yàq lépp li producteurs yi béy ci seen sardine légumes. beneen xeeti yàqu-yàqu ci tool yi fële ca Sumbundu nekk ca Pakaaw foofu toolu banaan yi la taw bu ànd ak ngelaw yàqate lu toll ci 38 tonnes ëpp na ko sax euh, moo yàqu Bakary Konté ànd ak Khalid Diamé ci leeral taw yi mujj yi am fii ci diwaanu Sédhiou bëri na ci ay yàqu-yàqu yoo xamante ne def na ko ci rek bu nekk si Soumboundou Pakaaw lu ëpp ci 38 tonnes la taw bi daal di yàq loolu nag boo ko xaymaa mat na juróom-ñaar millions ci suñu xaalis Younous Camara mooy secrétaire général fédération groupement producteur banane fii ci région bu Sédhiou. démb ci guddi dafa taw taw bu tar bu ànd ngelaw. donc finalement dafa indi fii ay ay yàqu-yàqu ci tool bi ku ko gis ku ko gis ni da ngay da ngay da ngay wax ne vraiment gars yi vraiment li ñu ñàkk bëri na parce que def nañ décompte li ñu décompté mooy junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk taatu banaan. donc loolu boo ko xayma parce que 31 tonnes 680 la. donc loolu soo ko xayma tamit ci xaalis presque euh, euh, juróom ñaari million la euh, ñaar fukk junni ak juróom ak juróom benn teemeer donc loolu perte la boo xam ne vraiment perte bu mag la pour ñun. 165 familles ñoom nag ñu ngi ci tiit ak jaaxle ñu bëgg nag ku leen jàppale. loolu moo tax ñu ne léegi dañuy dañuy lancer benn kaddu ci autorités yi ak partenaires yi nga xam ne pour que ñu mën a jàppale béykat Barhane surtout jigéen yi nga xam ne vraiment dañuy sonn lool parce que. grâce activité bu ñu bu ñuy mënee fii ci ci tool bi la ñuy euh, seen famille bi si la ñuy dund seen éducation bi jàng xale yi si lañ koy dépensé. banaanare bi tax na ba ndaw yoo xamante ne bëggoon nañu dem euh, dugg ci gaal yi dem bitim réew ñoom ñëpp toog nañu daal fii liggéey. tool bi day day tax jigéen yi dañuy jaay banaan euh, te day tax tamit xale yi ndaw yi du ñu def émigration clandestine. parce que fii la ñuy am liggéey fii la ñuy xëy chaque jour donc su loolu loolu am problème il faut que état bi jàppale leen sinon vraiment loolu day indi ay découragement producteur banaane yi nag bëgg nag gouvernement bi daal leen jàppale ak seen i partenaires jamono ji koom gi lompoñ ci wàllu àddina bi naka la ñuy def ba kër liggéeykaay Sénégal yi génn ci union national chambre de commerce d'industrie d'agriculture am ci xalaat am ci ay pexe yit ñi ngi koy nas nar ko becci mu jëmale ci entreprise yooyu Mamadou Fall Amadou Ba dénk nañ leen ko jaxare ngi entreprise Sénégal yi am rawatina privé bi ci wàllu financement jamono ji nag kon mën na am seen xel dal grace ak fonds solidarité bu Afrique ñeent fukk ak juróom entreprise yu Sénégal déjà bokk nañ ci institution bi nag na mën a am lu ëpp ngir mën a dooleel économie bi fii ci Sénégal. il ne serait plus audible. war na jeex tey ñu dégg entreprise bu Sénégal bu daan dafa am problème mu garantie loolu jeex na ndax ñun moom la ñu indi dinañu rencontrer nag mboolem entreprise faîtière fii ci Sénégal waxtaan ak ñoom vulgariser leen financer leen. ndax loolu moo tax a jug fonds bi ngir yëkkati koom-koom bi. répondre aux besoins de financement des entreprises. nekk loo xamante ni union nationale des chambres de commerce industrie agriculture bi Sénégal rafetlu ko nee na ñu xaatim gi ñu xaatim te dégg ko moo di fexe ba dajale ay junni junni entreprise yoo xamante ni danañ ci bokk rek ngir yëkkati koom-koom bi. daanaka njiit li promettre nañu sax dana liggéey ci wàllu wile. waaw xam nga partage mooy am mooy da ngay gis toujours ko am projet bu baax. banque bi ne ko kaay ma financé la mais mu ne ana garantie xam nga banque moom day jël garantie bu fort euh, euh, euh, léegi nag fonds bi moom day ñëw partager risques yi ak yow ak banque bi léegi nag du ñàkk nga fay ci ay ay ay redevance mais soo xoolee redevance yooyu moo gën a moins cher fuuf Euh, li ngay fay ci intérêt bancaire ak taux bi la banque bi di accepter ndax banque léeg-léeg da nga def euh, projet boo xam ne ni bu risque bi élevé moom day lay fay ay douze treize pour cent mais bu fekkee fonds ñëw na mën nga ko réduire ci ay six ak sept pour cent fonds bi dana jël yenn risques yi te je pense que dana am suivi. lopp ci téeméer ak juróom fukk juróom-ñetti milliards ñu daal di koy mobiliser ngir rek jagleel ko entreprise yu Sénégal yi yu Afrique yi def kon ba bii lay économie régionale daanaka réew yu bëri sax. adhéré nañ ci bile fonds ñu dem ci jàng ak jàngale tout tànk yi ak jafe-jafe këyit yi ñuy faral di am association humanitaire bi di wuyoo ak boo daal di nañuy artu ci xale yooyu jëmale ci seen i waayjur ak nguur gi ñu taxaw ci di leen utal këyit ngir seen jàng mën a jaar yoon ñu teewlu ay kàddu Jacques Jox mi ngi ko dénk Ndeye Mati Dieng ak Mamadou Guèye. xayma ñaata ngeen doon ci Sénégal. du dem te danga may wax sa ngune ñan la man ma wax la ki ngay doon ndax xale yi ñoom ñoo yor réew mi te xale yi nga xam ne amuñu identité amuñu ay ay laago lañu xam nga laago dañuy gis ñuy dem rek ñuy soox ñu ne laago la wala yàlla def nga wàññeeku ñu ne laago la mais laago dafa am si nit ki nga xam ne kayit amul kayitu juddu et que tubaab yi moom la ñuy wax euh, des handicapés juridiques te loolu dafa bëri léegi dafa bëri Sénégal te ñun ñëpp ñun ñoo war a mën a xeex ndax loolu di jóge fi. ñu ngi jéem a yee askan wi ci ay fresques yu ñuy def ci dispensaires yi ndax ñi nga xam ne sax demuñu école bu ñu xoolee dessin bi dinañ mën a xam lan lañu junj ñun ci suñu euh, dessin yooyu. du rek ñi nga xam ne war a dem école parce que nappkat bi war na am kayitu juddu sàmm bi war na am kayitu juddu. ñooñu ñëpp fépp fi ngay war a yëngu da nga war a mën a am kayitu juddu ndax bu ñu leen di natt bu ñu leen di jàppale ñu xam kan la ñuy jàppale. ndax yow boo amul kayitu juddu bokkuloo ci dara comme ni ko président bi waxee doo dara euh, fii ci biir Sénégal nag ci at bi bu mu commencé ba léegi ne wax naa leen ne daf euh, ut jël nañu juróom-benni junni xale yi nga ak euh, ñetti téeméer yi nga xam ne ñun ñoo leen utal kayitu juddu. mbokk yi loolu doon fii li gën a fës ci xibaaru marax yi ci kattanu borom bi ci kanam tuuti dinañ fi dikkaat euh, rédaction bi ci nasaraan lay doon yaatal euh, xibaar yi gannaaw boobu ñu dellu si waat euh, mottali soir d'info ci nasaraan lay doon jërë ngeen jëf